Lord. assisté tey ci diggante Ndamloor ak Dexële en catégorie cadet final bi Ndamloor gagné ko. ci anam yu rafet football nañu xale yi jongante nañu jongante bu rafet ba Ndamloor jël ndam li ñu leen ci félicité di encouragé waa ASC Dexële ëllëg li ci gën a taaru nag mooy fekkee gi ko maire le maire de la commune de Mbour Cheikh Issa Sall assisté xam nga loolu yombul aussi honneur la pour xale yi. que mais jël si temps ñëw fekk seen final loolu ñoom ñu koy bàyyi si seen i euh, xibaar ëllëg si seen i njaboot ak seen i carrière de football. waaw ñun nag yàlla dafa dogal bi nga xamee ne en 1992 bi zone bi am di commencé fii si zone 1 zone 1 bi zone 1A et B amagul mais zone lañ doon wax Abdoulaye Diop Diop Kor Dior nekkoon président bi man maa njëkk a nekk son vice président en 1992. chargé de la commission socio-éducative donc jamono yooyu ba tey ñuy doomi Mbour di yëngatu auprès du sport mbourois du mouvement nawetaan mais aussi de tout le secteur du sport mbourois ba ci stade de Mbour si yëngu di si occupé ay rôle yoo xam ne aussi toujours pour accompagner la jeunesse mbouroise mais aussi Mbour dans sa globalité dans tous les secteurs. li ñu njëkk def mooy sant sant d'abord monsieur le maire Cheikh Issa Sall parce que moi, moo am l'idée de vraiment booster, couver ces ces poulains moom moo am l'idée de vraiment soxlaatul vraiment benn visibilité pourquoi pas c'est ce qui sont derrière lui Ni mexicains, ci gannaawam les taxaw c'est ce qui a fait que nous ñun ñu mën a pour représenter doon parrain donc nous nous nous sant ko gërëm ko ci nous noonu bu aussi à à à travers mes propos français tout à l'heure j'ai oublié de remercier le parrain Regardez, monsieur Mamlaye Faye Moi aussi c'est un gars qui nous a vraiment côtoyés, qui a appelé nous sur tous les plans donc nous ngi koy sant di ko gërëm nous loolu weesoo ñu si le président de la zone 1A Ndiol Diané mu am final bu mel nii final Tefes Nous avons nga xam ne amul benn président zone bu reewewul am final bu mel nii mu am ko xool ma si biir ñëpp ne man la bëgg ma pare ne ko mënuma lu remercier ko ñaanal ko mission bi ñu ko confié pour chaque année mu am une réussite totale à travers euh, euh, euh, vraiment la zone 1A mu yóbbu ko foo xamante ne nii président zone A mosuñu ko ko fa yóbbu donc c'est ça nos impressions. waaw tey jii moom dañoo am mbégte mu rëy parce que déjà euh, final bi ku nekk gis na mobilisation bi ci am ça veut dire que c'est une finale bo xam mu ngi intéresser jeunesse bi intéresser wa Mbour ñep ñew nañ mais li si xam ne moo si gën a mooy ñi ko parrainé parce que ki njëkk ki mooy euh, Mame Lay Faye le président Mame Lay Faye bi nga xam ne vice président la si mouvement am dem mais également c'est l'agent comptable particulier de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba nekk un cadre boo xam ne euh, Sénégal xam na ko mais nag dafa di cadre bu imprégné wu si en tout cas dëkk bi daal lu mu yëngatu rek boo gëstoo soo nga ko gis mu ngi si éducation mu ngi si santé bi mu ngi si jeunesse bi mu si également parce que yàlla def na

ñun ñëpp diñ bokk di ko defal mbuur yàlla defal ñu ko euh, vraiment mu doon bénéfice su mbuur waaye waa accident yi nag moom euh, dañ ci profité rek pour jaale le président de la République Macky Sall jaale euh, Sénégalais yëpp jaale chef religieux yi waaye jaale parent wu victime yi parce que ñun dañ cee am ay mbokk yu jege. par exemple ku mel ni Ali Sey le président de la gare routière nekk conseil municipal daf ci am moom tamit njabootam yoo xam ne dañ cee am ay accident donc ba ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne dañoo dëkk biir Mbour loolu ñu profité di jaare ñëpp. waaye di leen wax ne tamit loolu ñun fii à Mbour am na ay mesures yu ñu si jël mooy ñu ngi yokk tali yi fii Mbour ñu ngi créer ay voies de contournement ñu ngi également ak le président de la gare routière prévoir ay journées de prière pour ñaanal way dawlu yi mais également sensibiliser euh, euh, chauffeurs yi ak euh, ñi usagers yi nga xam ne ñooy jël tali pour que ñu gën a euh, bàyyi xel daal respect wu euh, code de la route ak mesures yi bees yi tamit ñu bàyyi ko xel bu baax ñu ñëpp ñu respecté ko ànd parce que lépp nag pour jàmmi Sénégal rek la donc loolu tamit ñu ngi koy waajal dinañ def également ay formation pour dolli capacité chauffeurs yi nga xam ne ñoo nekk si biir Mbour ñu nag chauffeur si daal ak gaaru cee dinañ gën a jegewoo pour que accident yooyu yàlla musal ñu si di ñaan sunu borom nag loo fi xewoon si ñaari semaines yi yàlla bu mu fee amati euh, yàlla nit ñi di dem koy ñëw parce que dem ak ñëw mënul ñàkk moom la ñuy def pour uti liggéey moom la ñuy def pour jàng moom la ñuy def pour dem faju ji mënul ñàkk kon yàlla nañu yàlla di may ñuy dem si jàmm di ñibbi si jàmm